balaa muy amaat combat di bëri su mm. fekkee bëgg nañoo gisaat Modou Anta ban doon gis mm. faaw mu génn dem liggéeyi doog a dikkaat. mais bu amul combat tam est mu ngi entraîné est-ce que non ah. mais entraînement aussi bi xam ne moo war moom mënuñu ko entraîné. Mm. parce que ni mbër pour mu entraîné faaw mu am régime alimentaire bu doy. waaye mbër mu amul combat. amoo avance amoo ku lay jàppale. man ngaa bëgg a lijjanti ab dépense ak di entraîné entraînement bi war teew mënut a ne sunu mbër yi li leen di daan mooy dañuy dem ba am combat. ba jotub avance doog a commencé di entraîné. doo jóg. benn balaa ñuy ñëw dañuy dog ñu ci bari bu ñuy bëri si Dakar dog la ñuy indaale. Mm-hmm. ndax forcer seen bopp teg seen yaram lu mu àttanul ba daanaka boo ba leen nga gis ñoom état boo xam ni bala nga ko gis ci ñoom maanaam ñu bëre ba combat bi jeex ba mat 15 jours ngay doog a gis état ci ñoom pour pour wan leen la li façon bi nga xam moom la ñuy entraîné baaxul. Mm-hmm. ndax bala ñu koo man dañoo dañoo am avance yor doo ko mën a làqutu fenn sax di entraîner loolu mooy problème bu mbëri Cees yi man maa la ko wax. Mhm. ñàkk ay jàppale daal li gën a indil problème. Mhm. loolu ci la bokk Iba. waaw da nga am sa benn poulain bu ñu naan ambulance. waaw amoon amoon waa Cees amoon yaakaar ci moom làmb amoon yaakaar ci moom. Mhm. tout récemment ngeen di dem benn euh, combat ay combat Espagne. moom mu daw toog foofu. am ambulance daa daw. Pambay daw na de. ambulance ah, daw na de ah, nañu ko leeral. waaw loolu dinaa ci sawar pour leeral ko. Mhm. mais nag dafa am fu ma ci benn parenthèse mu ci jël mooy dama ci sant euh, jàmbar Wesleyan. Mhm. wala jàmbaar académie. Mhm. damay sant directeur général ba muy Mansour Ba mu ci bopp ba. sant Papa ndax ginnaaw yàlla suñ borom ah, daw gi am na mais neexuma. ndax li tax neexuma dañ ma lebal teraanga joo xam ne kenn defaluma ko mhm. ndax ambulance làmb yóbbu ko kenn yóbbu ko mhm. su doon làmb koy yóbbu wala la neen Mansour Ba am na ay poulain ay mbëri yu nekk biir parcelle yu tukkiwul mhm. mais fa la leen bàyyi ah. kóllëre gu mu am ak man ak Papa ma diis leen sama rak xamal leen ni sama rakk la ci man la la la topp situation bii mbëri di dugg dudd su ma sañoon mu dañ dama bëgg lu ko yóbbu mu tukki ñe waxtaan ak ñoom ah, mu am ay invitation bu académie bi jël sama rakk dugal ko ci biir Mansour ba moo yóbbu ambulance Espagne moo ko daggal billet. Oh. man mii di magam sama juróomi dërëm demu ci. Mm-hmm. amul benn bindees boo xamante ni yëkkati sa ñaari dërëm yoo xam xamante participé nga ci voyage boobu. Mm-hmm. kon su ma defee la lu toll noonu. donte ko sama rakk dafa dem te ñëwul tamit man fu ma toog ci àdduna dinaa yëkkati ay kàddu yoo xam ne Sénégal gépp nañ ko dégg may sant Mansour Ba ak Papa Sow nga xamante ni ñoo tax loola am. ndax mbëru Cees rafle woon nañu loolu loolu lépp masumaa mm-hmm. mm-hmm. teg sama bët benn mbëru Cees buy dépare aéroport bi di génn di voyager di dem ci ambulance laa ko njëkk a gisee lu dul ñi nga xam ne dañoo génnoon demoon tukki ko ci mel ay sàmbalaw bi taar géey mm-hmm. kon su ma defalee lu toll nii wax dëgg yàlla bala maa wax ci daw gi wax dëgg yàlla dinaa leen delloo njukkal sant leen ñaanal leen gis naa ñuy taxawal ab combat royal waaye di nga leen dégg ci leneen lu ëpp loolu moom Mansour Ba. yaa leen di neexal rek fekk rek nga. neexalu ma leen liñ ma defal. démbali defal dañ ma defal teraanga ju rëy. Mm-hmm. te defaluñ ko kenn man lañ ko defal ndax sama papa daf ma dénk Matar Mbaye ambulance. Mm-hmm. Matar Mbaye ambulance déparé wu ma ci carrière am dama fekk ay nit yor ko ku ci mel ni Gora Ndiaye. ay ñoom Ousseynou Seck. Mm-hmm. ay nit yoo xam ñoo tàggat sama rek dugal ko ci làmb donte ko may magam. ba mu dem ba dégg daal yi ba ñu xam ko. mu dem am tegale ñaari defet di ay tolof tolofam ci làmb ci la ma sam papa doo ko jëlee may dugg ci moom. mu woo ma ba ma ñëw mu ni ma yow rek laa am yaakaar ci sama doom ji nga xam ne yaay magam mboolem ñi ma jur yow laa ci gën a yaakaar pour dénk la ko ci situation bi mu toll. bi ma ko sam papa waxee ma ne ko ñaanal ma ci ma taale samay loxo mu ñaanal ma ma ne ko boo ma ñaanalee dinaa ci am ndam kon su ma maasul ba defalee lu mel nii defalu ko sam papa defalu ko kenn man la ko defal. kon su ma toogee ñu dugg ci loolu. Mhm. balaa ma cee sori dama leen di delloo njukkal. Mhm. ñaanal leen sant ko. léegi yan raison moo tax mu mu dem toog foofu. raison wu euh, influence. influence. waaw parce que koo xam ne bi ñuy lijjanti visa pour mu tukki yëguñu ko. Mhm. xamuñu lan moo ko tax a tukki. mu am visa bu valable mu wóor leen ni visa bi muy tukki. su ci demee respecté délai yi ñibbisi. bu subaa su bëggee delluwaat dem dellu. man bokk naa ci. Euh, bi ñuy taxaw ambassade Espagne Liis Njaago mii ngi taxaw mi ngi may dégg. Mhm. Modou yaa ngi taxaw Mata taxaw man ci ñi leen di conseiller ni leen bu leen kenn détourné. ba tax ngeen di daw ci la bokk soo laajee moo jëndinaa li maa leen wax. barke yonente yàlla Muhammad mm-hmm. ak sama koor gi. Mm-hmm. ni ko bu leen lenn mën a détourné. Mm-hmm. ci àdduna wala mu yàq seen xel ba ngeen di dem di daw. da ngeen kuy wax loolu doomi jàmbur sarak taxul. sarak dem dem toog fa. mu taxaw ñoom ñëpp ñu taxaw. mun naa wax sax ni conseil booba ñoom Liss Ndiago man la ñu gën a déggal ko ki topp ci man. ndax ñoom bi ñu demee ba seen seeni kii jeex. dañoo ñibbisi ci seen temps normal. awma ci lu dul ama grande surprise ci jour bi ñu war a ñibbisee. Hmm. ni ma wax dañu dem ba ci benn restaurant bu nekk Madrid fa lañ ko mu a gisee. wallahi lesi yàlla mi ma tiim xam na ni. Hmm. toog na ñaari fan ñett yoo xam xamante pour ma jot ko problème la. Hmm. ndekete booba jël na. planifié na. yoon boobu. mooy fu ma jaar ci biir Thiès nag benn wax bi laay dégg. Matar dem na Espagne ñu naan mu mbaa wax nga ko bu mu dellu xam loolu hmm. vraiment du Sénégal mooy li ma la wax. Hmm. du ñu bàyyi nit kuy dem. dañuy du ñu bàyyi ñaari nit ñuy ànd aussi. Hmm. mais ki yor rakkam lijjanti visa ay nit ñu jàppale ko te ba mu tukki. mu ñëw toog sama papa toog samay rakk ñëpp toog ma wax ko li ma bëgg. demal ci dele bii su jeexee ñibbisi. bu ëllëgee foo bëgg a dem dem fa. foofu la nit mën a yem. ña ci seen yoon nekkul ñoo jël seen téléphone di ko woo guddi ak bëccëg suba ngoon influencé ko ba dawlu ko. ci lu ma yëgul. sama papa yëgu ko këriñ yëgu ko. regret da nga ko regretté. non regretté naa ko parce que xam nga lu tax ko mooy li mu def xamu ko. Hmm. yow mii xam nga ni li mu def erreur la. ci kooku kuy tukki te mënoo delluwaat kooku la tukki jafe ci yow. Hmm, hmm, mais koo xam ne soo ñëwoon am combat bu subaa foo bëgg a dem préparé wu dem préparé wu. mais vraiment dem di daw nii erreur mënu ko weesu. su ma ci amee lu may mooy li ma diggaaleeg sama moromi gor sama rakk teggi ko wax dëgg yàlla lu ma metti la ba ci sama biir xol ma leen koy jéggulu te di leen ñaanal vraiment lépp loo xamante daal yéen a amoon ci man ma def ko yàlla na ma yàlla sama borom jàppale est-ce que yóbbaalewul woon avance promoteur tamit non non yóbbaalewul dara ñoo bëree ba pare non da bëree na ak garga deux ba pare mhm. yóbbaalewul dërëmu kenn ah, ndax man maay ménageuram maay magam maay kilifaam mhm. benn avance la fi mu sa jël du avance mooy dogale njëkk digganteem ak Youssou Ndour bu Balla Gaye bu Balla ak euh, sama frère Assane Ndiaye. Mhm. yàlla suñu borom dogal. nee na du ko bëree l' après. waaw ñu am ay xam nga rek du man mais xam nga mbër. sa mbër bi bëri na problème de. waaw non woon man kese <laughs> xam nga staff bi nga ko bokkal. nga jël ab mbër ñoom ñu dem ba ci biir genn wàll gi bëggu nanguwuñ ko ci combat bu ñu régularisé wul. mu commencé jur coow li ci gën mooy nga teel ca reculer. biñ ci reculer aussi avant muy jël beneen avance. wàññi naa xaalis bi nga xam ne moom la mu Assane Ndiaye joxoon. Mhm. tegaat ko ci loxo ki ma ko séq. ok ok très sincèrement. avant muy jël benn avance. Mhm. la mu séqoon nag moom yëkkati naa tegaat ko ci loxo. ndax boobu signé wuñu woon benn contrat. Mhm. demuloon CNG kenn régulation ko dama dogale woon njëkk waxtaan. mais nag kàddu gor moom amoon na ci. mais comme nag ah loolu am na ci tamit li may njëkk a def mooy delloo ko xaalisam ba pare mu doog a jëli beneen beneen avance. boobu nag dama jàpp ci moom moo tax bëreelul Assane Ndiaye. Mhm. war a bëreel jàmbaar. Mhm. pour yoonu tukkee mënoon ci am ci sama ah, xalaat boobu. demale jële ñu bàyyi ko mu suuf la. ñu mhm. dugg si revue de titre yi ah, Mouhamed ñu dem si revue de titre ñu may Pambay mu suuf la je pense que andi na leeral si am.